Iya, di kota cuma ya lah ya lah di mana walah enggak. oh leel armu de meya gisse gisuma ko da way Mangai joy rek masa. mea masa masa. xol kamu bm bm lu fit kat mea mau non Wae madam mea sol lu lidai? Karena enggak main nga ki ku len poudre yeen ñi kan mo len jàmbu déet bu mu la ci fekk bu tok toge nu Michael Jackson defal li nga man rek xol ko muy mel nap serangal yow mi do ba ah tey baas te ku ko ñom wala ay di mel la tapi ah baxna ah baxna nan baña wax rek di tawé ko di mel welta weltaa welt baal yow mbati koy lasper ah madam yow mi sa loxo yi ah waye day Sénégal lu fi nit di def nang ko xam barke seigne Tuubaa mak amna ñu mëna katch man yow la def dug sama TikTok bi xaar ma wonen fen kat yi xaar di gëna metti ci adina nak moy fen kat buy jang maandu tàmmi fen xey xey bëgg bayyi nopi 10 jours yu ñëk yi ngay gor lu rek mi ngi melni xalé buy jang koor da nga am ñaari fan ñett fan ci koor mais da ngay jékki yeen a ko gisandoo ñoo ngi non ñi dañu ma yone yëf jàmbur yi yéen dama yone video jambari ku ci gis sa bop setan nga fan kan nga yow de kenn du la sa përëm xànjar lan lay def ben yoon ñepp noppalu li waye ñi seen xol yi bon na de ki bam dalay fecc ba legi way kenn du jug may ko xaalis may leen ko way ah borom suwaa di sab ba jug na xëy da koy may mujjana may xaalis lo ci wëndee lono nek nekk dañuy parakaju dama la mel ko rof guñ solo sëpp ni demal toog laa la ah dem rek ngay ada makan di demel la gp boo demee fee ñëw fi dem fee Saya fi sa yaram du ko ah bahana? na di mel ni capp di mel na kuy sah. Lagi one na sax léegi wan ah kenn ay xew wala ñaar borom lu weex lii toogandoo ci borom xew mooy kan moom muy dendandoo di mel escalier ah ndax man damaa xam kan moo ciy xew ci ñaari ñi yow. ma ni jarul yëngali tànk laa la wax sa ras yi di mel ni fecc katu boobu maar la boo xew jugal toppal borom xew mi ngay nuróole noonu ah. ah kon yow yaa ngi fecc ba léegi sa yeel yi di mel ni ay ranos baax na. man moom tey laa jàpp mu yaa gise waaye tey laa koy ba gis nga bu la pelante ñëw jox ma ko ma indil la ko ah, ma ba waay mu jaw yow ko la jàmb sa kanam gi di mel na ñulu ah baax na yéen ñi nga xam ne nag da ngeen joué utiliser leen suma code promo Ndiaye 21 tout en majuscule lien bi mi ngi sax bio demal télécharge sa nga def dépôt moo may la bonus 156 000 francs